noonu ñu ko daal di doxale waaye nag Amadou Ba nee na ñoom danañu continuer di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi moom premier ministre bi daan nay wax ne compteur quatre-vingt-dix kilomètres par heure loole nag dañu koy amal ci ni mu gën a bii di la sa nee na accident sàkkal bi am na lu toll si ñaar fukk ak benn ñoo xam ne ñoo si ñàkk seen bakkan journal bii di libération nee na ci benn semaine bi am na lu toll si juróom benn fukk ak juróom ci nit ñoo xam ne ñoo ci faatoo maanaam soixante-cinq personnes ndax accident bi xewoon ca diwaanu Kaffrine amoon na lu toll si ñeen fukk ak ñaar yoo xam ne ñoo ci faatu woon accident bu sàkkal bi ñaar fukk ak ñaara maanaam 42 personnes ñoo faatu woon ca Kaffrine 22 personnes ca diwaanu Sakala journal bi nee na accident démb bi am na ci koo xam ne maanaam dafa blessé waaye nag ñetti doomam ñàkk nañu seen bakkan ci biir accident bi journal bi nee na kaar Njaga bi nga xam ne moom bëkkante ak camion bi dafa surchargé na maanaam dafa yeboon lu ëpp ëpp na lu toll ci fukk ak juróom ci nit kaay gi di réew ko di ca Sakala ñi nga xam ne ñoo am ay gaañu-gaañu hélicoptère bu armée la leen si ngir nag andi leen Dakar yéen ay fan néew lu ëpp juróom benn fukki nit faatu nañu ci accident Sénégal jamono ci ma ngi ci dëcc yéen a kaay gi de bi na nee na lu toll si juróom-ñett ciy fana lu toll si juróom benn fukk ak ñeent ci nit ñoo xam ne ñoo faatoo ci ñaari accident yéen a kaay gi de l'observateur nee na accident bu démb bi ab njaga yi moo doon moytu am mbaam far nag daal di mbëkkante ku camion yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na démb tamit ca diwaanu Kédougou am na fab accident boo xam ne am na ci kenn ku ñàkk bakkanam yéen a kaay gi di vox xëy nag ñëwaat ci accident bi am ca diwaanu Sakala nee na li waral accident bi mooy oto Njaga bi li mu doon dawa maanaam ay xël la taxi mu bëggoon a teggi mbaam mi far nag mu daal di jàkkaarloo ak camion bi ba pare tamit oto bi dafa sursarsona Youssou Ndoye jaraaf bu wakaam moom ci journal bi di Vox Populi nee na accident yi nag am na ci loo xam ne maanaam jinne yi ñoo ko waral yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw accident bu metti bi nga xam ne moo xewoon ca diwaanu Sikolo démb bu beneenu accident moo xew ca lu toll si ñaar fukk ñaar ñàkk ci seen bakkan yéen kaay gi di Source lu jëm ci wàllum visite technique yi ci Sénégal war nañ ñu ko xoolaat ndax ci ndakaaru gii ci kolobaan gi nga xam ne fala taximaan yi di defee seeni i contrôle visite technique amul ay machine maanaam centre visite technique bi nekk Hann Bel-Air rek moo baax ci Sénégal ndax ci diwaanu Thiès foofee centre ba fa nekk amul ay machine am na ñoo xam ne sax seeni oto du déplacé wu seen i këyit rek la ñuy yónnee ñu daal leen di defaral visite technique yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu gerewu transporteurs yi ñi nga xam ne ñooy bus aftu yi ñoom bokkuñu ci Maba Jaxo mi nga xam ne bokk na ci syndicat national des transporteurs de proximité nee na tarif yi ñoom nag danañu ko yéegala maanaam danañu yokk paas bi yéen i kaay gii bi nee na Mansour Faye jamono ji ñoo wax ne ak congolonko moo ko topp Mansour Faye ndax sonalul président Macky Sall ndax ñoo ngi koy mbi fi foore di ko mbamb de gauche à droite moom Mansour Faye ginnaaw accident yi ak lu jëm ci wàllum grève transporteur yi ak rapport Cour des comptes bi ci la journal bi dikk yéen i kaay gi de la Quotidien bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum yoona nee na Papito Kara bi ñu leen jàppee mbogo ko nee na avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag li nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam réquisitoire bi nga xam ne procureur def na ko daal di wax ne dossier bi nañu ko jël yóbbu ko chambre criminelle loole la avocat yi Ousmane bëgg teg loxo ngir nag càmbar lan moo ca nekk yéen kaay gi de la Tribune ak Walf Quotidien ñu xëy dañu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy allié président Macky Sall yi jamono ji nag ak fipp moo ci am maanaam rébellion gu mag moo ci am yéen kaay la Tribune nee na biir Parti socialiste fu nekk am na rébellion waaye nag li am ba de mooy Moustapha Niasse di Aminata Mbengue Ndiaye di Idrissa Seck ji ay carcasse politique la ñu maanaam tekkiituñu dara ci wàllum politique yéen kaay gi de xëy di ñu xibaar nan ñu armée nationale bu Sénégal ñoo ngi wéy di def ay opération ci diwaanu Casamance ci Nord Sindia ci base bu MFDC yéen kaay gi de Libération xëy di ñu xibaar naan ñu Babacar Dia mi nga xam ne contrôleur la impôt na jamono ji nag ñoo ngi koy tudd ci wàllum escroquerie terrain ci stade Léopold Sédar nañu ko loxo bi mu nekk juróomi la yoon boo xam ne ñoo ngi koy jàpp signature Mamboy Diaw ak gouverneur bu Ndakaaru lañu daal di falsifier